ni Tiwaawan toll ak ni famille bi toll mennum Serigne Abdou Aziz bi moo ci sacrifié wu pour ñëw wéttali la waaw naa xeeb ndax rajulun ka alf man loolu laa ko jàppe benn nit bu taxaw taxawaayu junney nit moom laa jàppe taxawaayam bi wa tabaarakallah waaye nga ci ëllëg dana bari ñu yàkkamti dellu siwaat waaye maa leen di xaar ba booba Tiwaawan gii ci sama loxo lay mujj Cheikh Mbeng ngi nii shérif bi la ko waxoon nu mu tuddati shérif Mohammed Lamine Aydara nee na moo ko téléfoné wax ko ko ak xaal ni ko waxal sëriñ Moustapha ni ko Tiwaawan yëpp ci loxoom la jëm waaw waaye loolu ba ma ko gëmee du tey waxuma la Tiwaawoon waaye Sénégal sax ci sunu loxo la ndax ku dul fenn moo ko wax muy Seyid Cheikh Ahmed Tijani boo gisee may naw ku mel ni colonel Malick Cissé mooy pas-pasam ci loolu ak gëm gi mu ko gëm ne am na ñu nga xam ne xalaatuñu lool ko xalaatoon danañu tey ci yu bare xam nga wax naa démb waxu sëriñ Bay Si Mansour waaye ñoom seen bos waxuma ko démb te pourtant xam naa ko li ñu débloqué ci xaalis yépp boole ma ko mag ñetti sëriñ ci Sénégal pour lu ñu détruire ak magie ya ñu utiliser yépp ak ya ñu suul ca tefesu mbuur ba yépp waaw waaw yépp a ngeeg man waaye ñu ngi toog fii di wax kon yàlla rek moo am solo waaw sunu barke kilifa incha allah waaw bu ko defee kon nag lu dul yàlla neen la ala kullu cheyin ma xala allaha batilu waaye yàlla nag moom mel noonu kenn du féetewoo dëgg ñu may la jàmm ba mu jeex mais yow yaay jàpp sa dëgg rekk waaw lu ñëw fekk la ca lu dem fekk la ca waaw bu ko defee moom itam ñu sant ko nga li mu def tuutiwul waaw moment bu mel ni ku xam li xew yépp mu ñëw ci yi circonstance wax dëgg yàlla tuutiwul waaw sama mbokk ma nag gisaguma ko mooy Habib bu Sëriñ Mansour waaw waaw am na mbokk bu ma ko wax fan yii ni ma fii rek laa koy xaar ba xam lim daan wax at yi passé dëgg la ci moom walla du dëgg waaw waaw moo waxoon ni duma otage yu moo waxoon ni bu ma demoon ba ñu teg ma ci jaat di ma bëgg a suuli ñu ni ma sëriñ Moustapha soxla na la ma ni malaaka bi may ma tuuti ma dem wujji ko te ñëw waaw ma defe ni yooyu yëpp nag mu ngi fi tey di ko xaar bu dee dëgg la ci moom fa xayru mu dul dëgg nag yàllaa xam waaw waaye fii kenn du fi naxaate ndax nit ñu nite rekk a fi nekk nit ñu dëggu rekk a fi nekk waaw ku daan ñëw te muy dëgg di nga fi fekk ñi nga fi daan fekk ku ñëwatul te fekk dëgg gaa fi boo demee it sa place keneen toog fa waaw lu tax na kon nag bu fekkee ni ñi ñuy invité ñuy war a wax borom bi sago nañu duñu wax luy provoqué waaw mën nañu wax lu rafet rekk ba keneen ak keneen dugg ca waaw boo gisee sant yàlla gi ñuy sant yàlla mooy góor gi façon bi mu liggéey tey ci tant bi mbokki murit yu sell yépp a ngi fi mbokki xaadir yi sell yépp a ngi fi mbokki tiijaan yi sell yépp a ngi fi mbokki laayeen yi so yi sell yépp a ngi fi parce que dafa am lu ñu bokk lu ëpp tariq mooy yàlla ak yonent bi Cheikh du nitu tariqa c'est un homme universel mu donne ci yonent bi li mu donne ci moom te yonent bi duma wax ni c'est un homme universel mais interuniversel waaw moo tax ku donn ku mel noonu ñépp war nañu mën a xaj ci yow parce que mas naa leen ko wax ci benn waxtaan ëllëg yowmal qiyaam ku dekk ñëw ci sunu kanamu borom naan ko ana Cheikh Ahmad Tidiane Chérif yàlla dafay taxaw di la xool rekk keneen jóge fee ñëw ci sunu borom ne ko ana yàlla dafay taxaw di la xool keneen ñëw ne ko sunu borom ana Limaamu Laay yàlla dafay taxaw di la xool rek keneen ñëw ne ko sunu borom ana buukunta yàlla dafay taxaw di la xool rek parce que ñooña fa nga séqeek ñoom la nga war a def pour yàgg ñoom bu ngeen ko defee dossier yee def lay jiitu ci xam nga ana awalu shafiin wa mushafain hunak li ci gën a yéeme mooy defe ni ci nit ñi lay am mais ñi ñaan shafaa ci yonent bi aljanna ji bokk te mooy bu demee ba amatul fu mu def kenn mu ñaan yonent bi chafaa pour yàlla élargiral ko defal ko extension pour ñi yàlla bëgg a teral ñépp mën fa xam waaw loolooy tax soxna bu jigéen bi toog del déglu del xool